alhamdulilah rabil alamin ziyaara bi dafa nekk lu xam ga dafa yàgg ñu koy def euh, mooy góor gi mooy xam nga cheikh na cheikhul mahfouz nafaanallahu barkaatu ko xam nga néegi yàlla la euh, néeg nit yàlla la wali bu mag la euh, at bu nekk lii dañ ko dee def si mawlud bi 16 17 léegi at bi nag mu tombé si 13 14 nag yalla def nag balaa loolu dafa am magam bu toogoon foofu mooy Chérif Hatabul Samsidine yalla jël ko àndataan même pas deux semaines moom ku ñëw ni rakam ni moom mi ngi nekkoon France si France foofu la nekk toog foofu presque 37 ans di jaam yàlla nag depuis ñun suñu mbir bi mooy xilaafa bi ku xam nga moom mooy mag ak wilaaye moom lañ ko jox depuis kii nelaw rek kii moo ko topp moo tax tey alhamdulilah rabbil alamin képp chérif yi Cheikh Cheikhul Mahfoud mooy famille Cheikh Cheikh Mahfoud muy daasla muy daal xeer mu Mahmouda mu binaa ko tey moom mooy sa xalifa bi nag waaw jafe-jafe bi moom dëgg-dëgg nag ak a bëri fii nag par que yéen seen boppa depuis ngeen di ñëw gis ngeen yoon bi ni mu mel rawatina nag soo ko seetee nag tey Euh, waa kër yonent sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla wax lu yonent sallallahu wax dañ leen war a cëral lépp lu xam nga lu war a rafet dañ leen ko war a jox yonent sallallahu alayhi mu ne ngeen topp yàlla ngeen jàppal ma sama njabooti wala njabooti yooyu nag pour nga ñëw fii problème la gis ngeen yoon bi ni mu mel problème bu rëy la nag loolu lu xam nga nag lu rëy la si suñu dëkk bi fii bu naka nii wala di gis nag tam soo ko seete bu baax ñeneen place ñene raison lu ñu am lu kilifa diine war a am fii Darou Salaam su fekkee dañ wax état bi dafa am lu mu def xëy na état bi li mu am def na su fekkee dañ koy xamee ñun si suñu gis-gis dinañu wax nag 45 pour cent rek la ñu def nag. war a dese nañ lu bëri nag parce que waxtu bu nekkee ñu ngi leen di jàngoo et tout rawatina suñu porte de parole boo xam nga buun Samsidine rawat bu waxtu bu nekk mi ngi leen di toppa waaye ba at bu nekk dañ am yaakaar incha allah dafay nekk dafay nekk waaye ba tey nag ñi nga xam xam nañ dëgg-dëgg yaa san mbir bi moom mbir état la doy gaaw noonu waaye nag dëgg-dëgg nag lii moom yàgg na su fekkee nguur gi nag lu mu dëgg dëgg mu xool dëgg dëgg nag dëkk bi na nga seet seen Cheikh Mahfou encore njabootam kese ñu xam nga Casamance la ñu juddu wax ma feneen de passé nañu deux mille personnes fii la ñuy judd fii la ñuy judd fii la seen maam judd fii la seen yaay yaay judd nag kooku alhamdulilah rabbil alamin dama foog ne état tam war na leen gëstu pour xoole lu leen war a nekk lu rafet la lu war la. xam nga yoon bi nag mun nañu wax accident lu mu am nag dafa bëri nag parce que yéen seen bopp soo ko gisee nag sooy ñëw si bopp pax buy ñëw nag soo ko deful ndànk rek lu nekk mu ne fa xool leen état bi nu mu mel ne si sécurité d' abord baaxul. si njow dem ak ñoo encore baaxul wala loolu yéen seen bopp journaliste soo leen ko gisee di ngeen xam dëgg-dëgg nag loolu foofu dëgg-dëgg dafa dangereux rawatina encore suñu loptaan bi bu xam nga nag soo ko seetee fii presque trente cinq villages yi ñoo nekk fële waaye yenn saa pour nga am fi garab la problème la nag ba pare ñu wàññi ko nag mu am léegi cinq village ñoom ñoo dépendre si euh, poste santé bi nag waaye dafa am soo ko seete bu baax rawatina encore si fi ndox si soo seete bu baax appareil amul lépp loo xam nga santé la doomi aadama daf ko war a sante dëgg-dëgg nag mun naa wax nag famille bi nag gisuñ seen bopp si état bi nag dañuy nekk foofu état bi comme gan la ñoom nag yaa ngi dégg waaye dëgg-dëgg nag bëgg naa dëgg-dëgg nañu gëstu ñu xam waa kër yoon sallallahu alayhi wasallam ñoo nekk fii nag et puis waa kër seen yoon sallallahu alayhi wasallam lan la ñu am nag mooy lappee di am jàmm la ñu nekk nag ñoom fu ñu dugg rek jàmm moo ñëw fu ñu dugg rek jàmm moo nekk musiba génne foofu wala ñoom fu mu nekk nii nag lépp la ñuy def nag mooy état bi jàmm nag et puis mbir bi nag état bi soo ko gisee nag ñaari mbir moo ko jàpp nag mooy lan sécurité ak ñaan et kenn du def ñaan ba nga raw waa kër yoon sallallahu alayhi wasallam wala bëgg naa nag dëgg-dëgg mu loolu rek mu bàyyi xelam si loolu tam incha allah rabil alamin na réseau fii mooy noonu rek waaye fii moom dëgg-dëgg ça loolu moo tax mun a am saf en direct su loolu yàlla tam suñu problème bu rëy la macha allah rabil alamin di leen di gërëm bu baax di leen di sant bu baax di leen di di leen gërëm yoon Chérif Mahfouz Aïdara Lakadaf Chérif Mahfouz Aïdara Lakadaf président de organisation de ziar de Cheikh Cheikhul Mahfouz macha allah rabil alamin di leen di gërëm yéen tam presse di leen di sant di leen di wax nag jaru ngeen di xaar at bu nekk jaru ngeen di xaar dañ ne ko war a wax at bu nekk na ngeen xam ni seen ziyaare la seen gàmmu la wasalaamaaleykum wa rahmatulah